gudd na waaye boo ko laalee borom yëg ko lépp yëg naa ko waaye nag comme euh, kati mooy sëy dama bëggoon rek nga wax ak kati man kati sëy rek laa ko sant ndax ñun suñ famille sëy rek la ñu xam ñun sëy ba jeex sëy laa xam sama famille sëy la xam léegi dama bëgg rek nga waxtaan ak kati ba xam ndax moom mooy ndey bi liggéey kati waaw tonton man moom maa ngi gërëm di la sant ci sa teewaay du tey rek moo tax may wax hmm. ndaxte yàgg nga ma jàppale yàgg nga ma soutenir ci sama biir sëy Boubacar nag moom maa koy gërëm tamit di ko sant ndaxte jëkkër ju baax la jàppale na ma comme lu nit war a jàppale jabaram ci biir këram fa dëgg neex yàlla wante ak yaakaar naa ni su toppoon say tànk man ak moom du ñu egg si fii yëpp ndaxte yàgg naa ne dégg ngay wax ak moom di ko conseiller di ko teg ci yoon wante xëy na nag li yàlla tuddoon rek la bu may dugg ci Boubacar tonton xale bu ndaw laa woon hmm. ubbi na sama bët ci lu bari nag bi may génn ci sëy bi tamit am na lu mu yóbbaale jële naa fa expérience bu dul jeex wante nag tonton yaakaar naa ni lu wees moom weesu na ba pare man day vraiment kontaan naa man day baat ji ma fi jig nii euh, du moom yow mii la yow mii ndeyam te di ko sëyloo ndax xam naa ne ba mu ñëwee jóge ci noppam ba tax lii mu wax bett may ci moom ndax cër bii mu jox mas a jox mosu ci jóg kon vraiment kontaan naa ci torop ci li weesu yëpp nga fàtte ko ndax sëy neexul foog nga mu fa naqar pour am bànneex hmm. waaye tonton. Mm. man daal Boubacar su ma sañoon. Mm. leneen la ñuy waxati. ci lu mel na. su ma sañoon Boubacar may ma sama baat ma seeti keneen. Boubacar daal moom wees na.